ayaa soodaani jóg leen déglooti Muusa mu tagg fi Mustafa ma ñu tudde Yaasin ayaa soodaanu jóg leen déglooti Muusa mu tagg fi Mustafa ma ñu tudde Yaasin gajoon naa way ngire ñi sàcc taalif te seen baay sax ferul baasin fayaasin subuhun wal qudusun réewi soodaan gumbay xeleer ya sax di palamtu yaasin ngëlamte bon ne kon jaayil du taalif te xeleer war la yab njaacaar fayaasin wallaay ndaa maa ngi sooru ñaloor gu dangal xanaa dafa repp am dafa réer yaasin ku tëkkale bamba ak sëriñam dafay nar ni géej ga fa ndar gisee fu mbar fa yaasin pajuk aajoog muriid yuy daw araamul ku man na ko def si beesu ko na yaasin ku xam bay way far way ji yonnin ndegam xam-xam ba na ba sar yaasin sëriñ Tuuba ne man sama géer gi may way du déglu géwél bu xol ba tilim fa yaasin sëriñ Tuuba ne kuy taalif nga taalif ca saaba ya mbaa walli ya mbaa yaasin ku way te wayoo ci yonen mbaa ci waayam araf ya nga way da ngeen fa yaasin te yónneen daf ne waajuma tagg aw way ne warlu naa ajjana faw yaasin li lee man ma dib géwélem ci baatin di way Seex Bamba mbar mi fuutu yaasin borom taar booba moo ma jaral di taalif di tuuru di tuuru ngir lam doon yaasin salaat naab rabbu awakaalaani laamel layal naa bamba maa ngi layoo jiyaasin ku lay jaay taar nasam xel dem ci yónnen kataaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin ku lay jaay taar nasam xel dem ci wa taaxirun ak mu taaxiru yaasin ku lay jaay taar na sam xel dem ci maaxin kafar bakaar yi koo kale moo yaasin ku lay jaay taar ba xel dem ci haadin ka gindi samaam yereeroon wan la yaasin ku lay jaay taar ba sam xel dem ci haadin te ginde samaam yeriirun walla yaasin ku lay jaay taar na sam xel dem ci nuurun siraaju laaxin lampab gaas ba yaasin ku lay na sam xel dem ci muxtaar ka yàlla ni mustafa ma ñu tànn yaasin ku lay na sam xel dem ci yaasin imaamul mursaliina kilee di yaasin ku lay jaay taar na yaasin imaamul mursaliina kilee di yaasin muhammadu mooy turam wañu sant baayam wa ahmadu mbaate xaamidu mbaate yaasin te ahmadu moo di rahmatuna ji baatin te xaamidu moo di nixmatuna fa yaasin turam ya mu am dañoo lamboo ci maana limub xeetam wi ci xeewal fa yaasin turam yi la mat na ñaari wa ixda yeral ma dalailul xayraat yaasin bari tur daana tegtali mbar ci maana te mi mbar kenta kaaliwu kooti yaasin nit ak jinne ak malaayika ñépp raamoon ci yow ala su jébbulu naa yaasin seydina muhammad juddoom ba rafet na koo kaay ngeen ji haasin amul arab xuraysin xam na yaasin seydina muhammad juddoom ba rafet na koo kaay ngeen ji amut ci arab xuraysin na yaasin di yaaram doomi yaaram doomi yaaram satub makaak madina du maasu ne maamam yaa ngi doom ya satoo xuraysin ca taarub taar ba lañu taaroon yaasin ma dégloo su ma dégloo su ma dégloo malim tey maam yaasin te wax taar ba fii kenn du fi mel ni yaasin seydina muhammad fii kenn du fi mel ni yaasin muhammadu yaari abdilaahi yaasin wa abdu manaaf doon limiyeer fa yaasin dadaa la bayka naa la bayka jaxaran kenn diggal maam ja eskay mooma yaasin xusay ak yaari maamam wa murrata seeni taara nga mel ne yaasin wa kaabun ak lu ayun teg ca xaalib ña ngay taar ba taar yaasin wa fixrun teg ca maalik teg ca nadar ña ngay safi ngir ca ñeer yaasin kinaanata ak xuseymata yaari maamam ñilee di weer ya daaweraloo fa yaasin wa mudrikatun wa ilyaasun wa mudurun te kanam laal leer ga newoon di yaasin nisaarun teg jamaadun góor gu sempal limal adnaan fii lañu yem ci ñi lee yor càllal baatin ya jàpp ca yonin moo yaasin terub taaram ba soor ba duñu moy banu haasim sariif lañu giir ga yaasin ma wax leen tey ni yaasin mel ci ba tudd fi ngan ji mbindeef yaasin seydina muhammad ma wax leen tey ni yaasin mel ci saaxir ba tudd fi ngeen ji mbindeef tudd yaasin sangub yoneen yi mooy yaasin ci baatin jagam ga ca moom mbindeef du fa yaasin wa innaka teg alaa xuluqin azimin la yàlla waxoon fa suuratu noon ci yaasin ولم تر قط عيني مثل ياس بخلق أو بخلق كندياس jikkoom dafa yeemu bindam baraw na am xel kamaalan aw jamaalan kenn du yaasin laqad faaxal xalaayiqa ni'ma xalqan wa xulqan Mustafa ma ñu tudde yaasin bindam baa sell cër yaa jot mu sempal borom ba ko mool du cuuna te kaar yaasin seydina muhammad borom ba ko mool kulóor ko sellam ga moo xay tabaaraka fi kenn fi mel ne yaasin seydina muhammad tëggam ba ko mool kulóor ko sellam ga moo xay tabaaraka fii kenn du fi mel ne yaasin guddul ba ne sell waaju ko seen cey kaa deful ab dooñ ba tax nga ne cem fa yaasin sayduna muhammad reyul ne fa tax ne gaañi dox di fangat di fang ba mel ne mbaami tugal fa yaasin wawul ba ne koŋ tew yaramam du laal weñ sewut ba ne lambaxit ak a jub ne yaasin di sab kumpali ti sew ba ne ruuj te sooful ñananta xasab du mooy taxawaayu yaasin kulla ngoog moom musut la ca kaw nga dib dooñ ku topp ci moom mu raw la nga des fa yaasin doxin wañu def ci rammutu lay sukkooto teten te teten bamba la daa daagoo yaasin doxiin wu ñu def ci rammutu lay sukkooto teten bamba la daa daagoo yaasin loxoom yu salab yu selli ya yàlla fuddan te waaroomam yey nuroog sooroor yaasin weam yene wer mel ni butung bu ñuy tëj tajoor ba ko poose moo mën a ñëw fa yaasin te yónneen deexuloon wagul te sëggul farul xoja gonde mel na ku noonu yaasin wetam dafa njàndi biiram sew mu xeereer lasul noo jul la xam yene laaj yaasin ndigam la ne xiit ndigal tama lañ ko moolal te doq ga daf ne yollu ni mbër fa yaasin te xar kanamam ba day saf weeru badrin jëham ba wandeelu far di melex fa yaasin bakkat ba fallu mel ne ne taal ba ndar wër tuñam ya di saf bu yu ñu ferme yaasin du tafli ci suuf du ñendu du génne aw ban te lu musa génne suuf no ke turux fa yaasin ñaqam waa dàq sikki dàqaan bar teraw kaafoor bun bun jàng fa yaasin lorom yaa dàq suukar dàqaak lem te ni xane dàq tewe xane sow fa yaasin gëñam ya di saf kayit gi ma yor di melexet walaay gàcceel na perkaal bee fa yaasin bu mus ne kangre nga ne kong tay say su mu di melax fa yaasin te sakkal yàlla waay sama polanteer te mel ni ku yuur ñu taw ci galaas fa yaasin njamal yàllaam lu ànd jaalu yàllaam la yaasin judduwaale du maas yaasin seydina Muhammad njamul yàllaam lu ànd ak jaal yàllaam la yónneen judduwaale du maas yaasin ne sooy ba ma gis fa banjul di mel meli njañ la mel ne wurus fa yaasin defaasam yaa nga mel ne wurus wu deewul di leer ndali tey batar ñi ko kaar la xam yu ratax mel ni ki feer yu ñuy diw te yéen yéen lépp mel ne ke yuusu yaasin batam yaa ngi wandeelu ilal jihaati ba mel ne ke mooli du wurus fa yaasin batam ba ni bàq per ba di saf ni na baa te moo gën a gis boroom lumière fa yaasin di xool kanamam te ba di gis gannaawam amul takk ndeer ne taar baay leer fa yaasin sugat ya di gëm-gëmi ka nelaw ci saaxir xolam di xool kenn du fi mel ne yaasin ke tusngal yaa janaam la ko yàlla tusngal salam ko cesal sabiilan naa ko yaasin te kër sa ka daana tax suy di lamsal dadaa wax ndànk tey dox ndànk yaasin barul te darul lasul dotamul te noo te taqul te léebu làmmiñam dafa wer yaasin barul te darul lasul dotamul te taqul te léebu làmmiñam dafa wer yaasin seyduna muhammad barul te darul lasul dotamul te taqul taleebul làmmiñam dafa wér ne yaasin këram yaa jotte gàngam yaa ganaawam ñu tampe ca xaatimab yonnen fa yaasin malaaka ya xar dannam ba ñetti yoonam raxas ko mu set ñu duy koy leer fa yaasin li nekk ci jaal jaral na ma dem Madina ومكة مروة كسفا فياسين كدم بكرم يسوك بلا سوكي سوتر ينال الحاج ngay ku ñu baal fa ku dem ba këram soppi la soppi sawtur ñu naan alxaaji mbaa ajaratu ngay ku ñu baal fa aka neexoon tey maam angaari xaalis nekkoon ma ni meññ dem ba siyaare yaasin di gonta kay xay di gonta kay xay ba faf dee di dox ci doj di xuus cim dox ba yaasin di rombuy kër di noote jëf ba jiddaa di tànku di dox ba buktu wal fa yaasin walaay mi la jaal jaral na ma war fafal naaw worom abiyon yi sanni ma bomb yaasin manoor ci niir nawet ya di tawte ayaat ni noorin Mustafa ma ñu tudde yaasin ma tabbi ci suuf ba tawte soreen Yunus ngireeg li ma xam ca moomale jaal di yaasin li nekk ci gaal jaral na ma tey te jaaloog jaal ba jeelu ci fa yaasin kile jara way kile jara nax di neexal di jox li door ba deesu la door fa yaasin seydina muhammad kile jara way kile jara nax di neexal di jox li door ba deesu la door fa yaasin kilee jarawoo di jox biti jeen ba doo deesu la jiin ba kenn du la seen fayaasin seydina muhammad kilee ma jara jaari bakkan baam kun ba wax ju ma wax di kun fayakunu yaasin kilee ma jaral jaari fetal yu naa ba daw baraw iti leer ngireeg wuti leer fayaasin كلاهما جرى الجار فتى اليوناتس براو إكلير يريك وتلير فياسين كلاهما جرى المفرانغا سايات باكال خرمان باكاي فياسين كلاهما جرى الفسيق سلمى وليلى وإن دون دخمة دنشو كام تياسين كلاهما جرى الفسيق سلمى وليلى wa hindun ndax ma denc kam ci yaasin ajaal mbombe way nan saytu bombo malaal sa yaram wi ndax nga yaram ma yaasin ajaal mbombe way nan sayte bombo malaal sa yaram wi ndax nga yaram ma yaasin ajaal mbombe way sa bakkan bi mooñal tawan ma sa xar bi tere ma yaasin dama waaye jombu nga sax samay kem tawaaja xamul xamal ne xamul fayaasin ma jóg nu fasante walla refeek ba may dee na ngeen ma ko seere maa ngi ci jaal fayaasin te njàmmit du waajana fase naa la gontal ñëwal ba ma baada saw jëla yaasin yow Seydina Muhammad te maa ngi ci yow ba bañ may jaala yow jaal te soo ma jëlut keneen du ma jël fa yaasin ma dellu ci wax xibaar ya ma xam ci yaasin ma ne fula lim nga neel ya ma gis fa yaasin walaay sama bët gisul sama nopp déggul te xel mi dajul ku mel ne ki jaal fa yaasin amul ci malaaka saka nit wa jinnin te bàyyi ma ak njanaaw du ñu mel ne yaasin te laaj naa ko mun ko laaj malakooti turan balaaj baarul muyti ku mel ne yaasin ñu ma amul ci gaaya weyoon ca baawan te ñi bëgg a ñëw amul ci ku mel ne yaasin malaaj ko fa ardu sim simitin ña dul dee ñu naa ma amul fi kenn fi mel ne yaasin fulaam jaak faydaam jama xam ci yaasin gisee fu ko woon yaasin seydina muhammad fitam wa ma xam du jàq du rëdd saalit ku weddi nga laaj ko jibriilu xam na yaasin ngoram gaag maandu gaag bari bayram jom yarom gaag taar ba ñoo booloo yaasin xelam maa xay ga sempale gaag na muy def salañ salañam ja ak waataay wa yaasin ku jooytu fi moom mu farrangoo nje muy ree ku rafle mu waddu faccaaju yaasin sayduna muhammad te moo manu ganam du tawat du du saalit ku teew mu teral ko te mu yaasin te moo ganam du tawat du ku teew mu teral kuute mu sedd yaasin ku xaar mu xaral la xar baax joolax say dab nga fuuyu ni guub di seddale mel ne yaasin ku wokk mu faj ku faatu mu yóbbu tuuba musal ko ci naari ramu ñu fa yaasin fa tuuba suma tuuba suma tuuba ñeel na ku sopp Bamba te Yaasin fa tuuba suma tuuba suma tuuba ñeel na ku sopp Bamba te Yaasin fa waylun suma waylun suma waylun ñeel na ku noonu Bamba te Yaasin su doon ab kursu man teg naa ci Yaasin première baa ngi maanu me jaal fa Yaasin su defoon lamb yow jaal yaa di dabal door gaaye bañ Bamba Yaasin su doon wate maa la jox sama carte xol bi ne yow say candidat nee wiw fa Yaasin yow Seydina Muhammad soo doon wate maa la jox sama carte xol bi ne yow say candidat nee wiw fa Yaasin te songal mbar ya jaggil daane joggil ñi kontar Serigne Touba fa yaasin su ngeen dégloo ma wax leen tey ci yaasin lu ngeen xam loon te xam-xam yees na yaasin tërub taaram ba jaamu na taar ba ayaat sirub leeram nga jaamu na buur ba yaasin waxoon ko dem leen seeti mawlit jamaalan min jamaalin leer yaasin waxoon ko dem seeti mawlid jamaalan min jamaalin leer yaasin waxoon ko dem seeti mawlid jamaalan min jamaalin leer yaasin nit ak jinneeg malaayika ñépp a di war leeram gaayaate at fa yaasin nit ak jineeg malaaka ñépp a xooloon di taasu ca leer ga woon yaasin keroog lañu jàpp morso ca taar ba xalar tasaare ko tuur ko seddale gaa yaasin terub taaram ba lañ tuur xuuru ayni ba tax duñu faatu ngir taal fa yaasin ta jongama yooyu ñoo di boroomi tiitër ña ngay taaroo ca àjjana daaru yaasin te benn kawar ci ñoom boroton ci duniyaa nga janloog leeri piiri araf ne yaasin tërub taar ak jigéen di oor ay la jonga may di taaroo oor yaasin ke leerug jaala adama leeru nuuran ba ibliisu noonu ko noonu yaasin ma wax la nataar ba sedd li ko ci ba tër ba royaat ci aadama maam yaasin sirub taaram la aadama maam jalamboo ba yàlla ne usjudoo leer yaasin tërub taaram la jana di taaro di taalo lampub gaasam bir yaasin terub taaram la ibrahima naanoon di woo ko bagaay namrus naa ko yaasin surub jaal mbombe fay sawaraam wa bardan ba faf dolli ca saraaman ngir gaasin terub taaram melax na ca te bismillaahi mu juree xaan yaasin labal noonam ya ak dem na irkab ku bañ seex bamba du war yaasin terub taaram la Moussa Ndiame sango ba muy dem toori Siina gis na Yaasin terub taaram la xotti ci bahru Xalsoom la bar Firawna taf xaaruuna Yaasin terub taaram ca teex bala Yàlla reexoon ca kaw ayoo bara gëgga wér fa Yaasin sirub taaram ba delloo taar boromam ba ni'mal abdu feeñu ko ngir ga yaasin taaram te bala tibbura tax mu dal daawuda baayi sulayfa yaasin turub taaram te bala tibbura tax mu dal daawuda baayi sulayfa yaasin turub taaram mu fab siroom ba fent ca weñ gu ñuulam ba faf di xalifatu ngir leer yaasin turub taaram ca teex bala jox suleymaan def ko jaaro ñaan mulkan fa yaasin ci <coughs> barke jàlla jinne yaak yanaaw yi di toppe suley war ci ngelaw ne yaasin turub taaram la ma yaa xooba tuufoo daggat yene baqdaana palamtu yaasin terub taaram la yusufa doom jafel moo fa jooru xusni mooy taaru yaasin sirub taaram ba moo la jolon saliqa ba muy poñe yuusu ngir njaaloo fa yaasin terub taaram la ismaila taaro ba faw doomi taare ngir yaasin sërëb saaram ba welu na maaw sam-sam keroog ba fa isma juddoo ngir gayaasin sërëb taaram la root isaaqa mbokkam ba israila farxeet maam yaasin tërëb saayir sa lañ fam ndox ma tuur leen mu ray looleen ba far nañu noonu yaasin tërëb taaram ba ca ta la sanni yunus ca batnul xooti muy sabbaal yaasin ci barkeb Yàlla daa wax laa ilaaha ilaa ca biir jël wa ilaa anta yaasin ci barkeb Yàlla daa wax laa ilaaha ca biir jël wa ilaa anta yaasin terub taaram la jox Idrisa waayam ba moo jëkk bind njëkk durus fa yaasin ci barkeb gaal la dëkk ba nax boroomam ba dem fi daw si faf ne fa guus fa yaasin tirub taaram la jox luutan mu rango ba walbati suuf sa kanaanan fa yaasin baal yaa di saasi la xaaña ngay ser mu taw ay doj seen kaw ngir yaasin tërëb taaram ca teex ba la sotti mu wéy mu wéy asamaaw rafaxnaaw yaasin tërëb taaram wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walaakin la waxoon ca isa ngir ga yaasin la saali wu door ci gileem ne cettal la gémmi dëngaax fa yaasin ku daaraka rey fa damdama neel alayhim musiba du yem ci bopp borom fa yaasin siruf taaram la wat jàppe ala gaayam ya folle xerem ya yaasin ci barkeb jaala ilyaasa ki maasan wasul kifli liman yasaun fa yaasin waxaroona ki lukumaana ti dandam lañuy taaloo ba takk li na yaasin mane su talim li jaal mbombe taalal taxawlul njammi xatmul way wi yaasin jami xorus li wal kurama jamian ñangay taaloo ca leer ga taal yaasin wanuuru samsi aw xamarin wa najmin ñangay taaloo ca taar ba yaasin tasaaba ak wàllu ya mbaate xawsam wa xutbu samaan yi ñoo di si yaasin tamaale ko ak hanifatu mbaate xanbal wa saasiu seen ngiira di leer fa yaasin te ngir ya ca def xar nañ ko ñetti téeméer tigal sittiina dolli ca yett yaasin worom ngir yaak ña topp ci ñoom ci baatin ku takkale yaa ngi tibbe ci taal yaasin te seydina muhammad ne ku xuusul ngir ya turan waroo di diingat ku jëm ci man yaasin te yaasin ne ku xuusul ngir ya turan waroo di diingat ku jëm ci man yaasin bu diingat ku ngeen gis doonte xaj ba ndegam dana baw ca ruuram yaasin li lee man ma fa def tay ba Tuuba te Mbàkke di Màkka Bambaay mooma yaasin lee tax man ma fa def tay ba Tuuba te mak te Mbàkke di Màkka Bambaay mooma yaasin jumaa jile faf di joojale mooma noppal Sëriñ Tuubaay xalifa bu doon yaasin ziyaare ji leen ziyaare fa Tuuba ku yaasin raw na jàpp ci waay yaasin ziyaara ji leen ziyaara ji leen fa ku yoonin raw na jàpp ci waay yaasin siruf taaram ba sarna ba jàll taayif muhammadu doomi aminatun yaasin maneefu la wax li lamb ci moom ci baatin xalifatu bu mat xalifatu wóor wa sallallahu maalin wa saabi alayhima fafta xawlu sopp yaasin wa sallallahu maalin wa saabi alayhima fafta xawlu sopp yaasin wa sallallahu maalin wa saabi alayhima faftaxaw lu ta soppi yaasin amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin addi sayyidina muhammad barke borom Tuuba